waaw sama gars yi ñoo ngi woon ci waxtaan bu am solo entre euh, ñi nga xamante ne ni ñoo nekk Europe sëy à distance bu metti bi ah Adamo moo ngi rey nit ñi ak appel vidéo ah te te gars yi tamit wax dëgg yàlla ñoom tamit bëgg nañ bëgg nañ narapaayan bi ba nga xamante ne fu ñu toll ñoo ngi naan seen jabar yi def ñu appel vidéo appel vidéo appel vidéo te dara dafa wóorutul ci dëkk bi Ah, nga nekk ak sa soxna nekk ak sa soxna hmm? bëgg bëgg koo gis bëgg mu bëgg mu dundal la bëgg a xàppe ak moom hmm? amoo dara noo koy gérer lu dul appel vidéo te parfois seytaane da ruux ba nga enregistré appel vidéo ba nga enregistré ko sa nga perte sa téléphone gars yi jël données ah. xam nga ne lay tëjoo ko. bu dee yow ku jigéen ki. bu dee yow ku jigéen ki yow la seytaane jay ba nga enregistré ko. dama ñu tëj dara ñëw ba. nga ko sa téléphone am problème mu écran toj nga yóbbu ko maquette kolobaan ci réparateur yi. salut frère woo ma s'il te plaît ñun yéen a a mun a woote yéen am kii accès pour woote. nga jël sa téléphone yóbbu ko ci marché kolobaan gars yi sensé la ecran bi ba pare. te ñi saan écran yi dañoo sob ah dugg ci say données gis fa yu yu baax yu neex ñu envoyé ko seen téléphone partagé ko ci dëkk bi ngeen siiw yàq seen live lu ko fi jar te kenn mënu leen tere appel vidéo c'est impossible c'est parce que seen jëkkër yi ñoo ko soxla te jëkkër dañoo ne li mu bëgg da ko war a defal te boo ko defalee mën na la indi gàllankoor doy na waar kaay doy na waar. lépp ci mariage à distance jigéen toog xaar cinq ans six ans metti na parce que nga fekk xale bu ndaw boo xamante ne ni maanaam euh, li mu dox ci àdduna bëreegul xamagul dara mu marie mu marié soxla bonheur soxla dund dund bu neex soxla di ànd ak jëkkëram di dem resto dund ak moom ci biir kër gi ñuy bëree sànnante njegenaay yaa ma gën a xam ñu nekk ay complice di ànd di liggéey di wàcc di dajale teg seen condamné di dajale teg seen avenir ah. dem di di rêver pour am magasin dem di rêver pour nekk millionnaire milliardaire ainsi de suite xale boobu tey mu ñëw di sëyeeg koo xamante ne mu ngi Europe mu war a toog mu war a toog benn temps mu war a toog benn temps bu yàgg pour mën a toog xaar kooku temps boobu yëpp dafa war a téye boppam temps boobu yëpp góor waru ko xool temps boobu yëpp warul mën a def ci boppam maanaam génn doxantu ji dem restaurant dem fu ne temps boobu yëpp ku jigéen ki warul am fréquentation temps boobu yëpp ku jigéen ki dafa war a mel ni prisonnier dafa war a mel ni benn détenu bu nekk 100 mètres boo xamante ne fu mu génn dañ koy garder lu muy def dafa war a tàggoo léppam c'est contrôlé léppam c'est contrôlé léegi kooku noonu jëkkër ji war a def foofu benn 5 ans benn 6 ans on dirait que yi dañuy wax mariage à distance mais man tuddeewu ma ko mariage à distance man pour man mariage kii la mariage criminel daal maanaam ku jigéen ki daal la ñu def ko ne ko yow criminel euh, maanaam mariage boo xamante ne xam nan lañ ko mën a waxee sax euh, mariage bu ñu tëj daal mariage prison bokk te ku góor ki moom dafay am droit day am droit takk foofu beneen jabar bu ko neexee sax mu am gel dund fa lu neex moom lu toj lu amul fen mais ko jigéen ki amul droit boobu droit yi nekk ci ko jigéen ki yëpp dañ ko àmbale denc teg lii ku góor ki moom day am temps wu dund moom nekk fa lu yàgg yàgg yàgg parce que lépp lu mu bëgg moo ngi koy def mais ku jigéen ki toog di ko xaar amul possibilité boobu ba pare nag ñenn ñi nag dañ koy dund ak difficulté bu metti parce que dañ fiy nekk duñu leen yónnee lu bëri am am jëkkër bu nekk Dakar sax mooy tane woowaa am jëkkër bu nekk Europe parce que am na nag ay jàmbaar gis naa ci ñoo xamante ne bëgg nañ seen jabar bëgg koo xamante ni malgré que ñoo ngi à distance mais ñoo ngi leen di toppatoo manqué wu ñu dara lu ñu bëgg suba ba ngoon jot seen jabar yi xolal seen jëkkër yi ñoo ngi koy def mais neexaayu euh, sëy bi moom duñ ko mën a am ñenn ñi nag dañuy xaar xaar xaar xaar ba sonn ba mu des lu dul mu ñëw bu ñëwee xulu xulu yu commencé takkar mais metti na mais bon comme parfois nag mënul ñàkk euh, yéen a yéen a loolu yéen a jël décision bi pour sëyee loolu donc mënuñu ci dara waaw donc euh, di ñaax ñi nga xamante ne ñu ngi fii nekk ak seen jëkkër yi nekk ak seen euh, jabar yi muy góor muy jigéen nga xam ne sëy partage kese la du leneen moo xamante ne ak ñi nga xamante ne sëy ñu sax ay euh, ay ay copain lañ aussi yooyu yëpp presque ñoo bokk même kii bi di affaire couple la partage la confiance la oki ok parce que nit boo nekkee ak moom te wóoluwuloo ko wóolu moom cela veut tout dire wóolu mooy partage maanaam ngay séddoog moom ay xalaat di séddoog moom li la yàlla may di séddoog moom lépp loolu mooy confiance quand on parle ci couple yoo xamante ne confiance la mooy di séddoog ki nga nekkal séddoog ki nga nekkal nag mooy boo xoolee secret yi nga xamante ne moo gën a diis si yow pour que nga wax ko moom nga war a mën a toog séddoo ko moom mu xelal la ci yéen ñaar ngeen waxtaan ci ngeen trouver solution xaalis bi nga xamante ne bëggoo kenn gis ko peut-être euh, mën nga ko nëbb ñëpp ba mu des moom peut-être mën nga ñëw ci moom ngeen toog nga wax ko ne ko maa ngeeg lii lan nga lan nga ci xalaat bu fekkee ne sax danga dem ba di ko denc nga nar ko dugal ci ay suuf rondal di ko dugal ci ay dàll mais pourquoi pas dénk dégg ko ki nga gën a bëgg ki nga jox sa xol ndax ndax jox nga ko loo xamante ne nii moo gën a riche xaalis xol bi nga ko jox pourtant moo gën a seer xaalis d te pourtant mu ngi ko téye denc ko kon pour man confiance loolu mooy confiance quoi pour mooy ki nga nekkal nga wóolu ko yéen ñaar nekk man mii day damay liggéey de euh, yàlla peut-être am na loo xamante ne moom moo koy may maa ngi koy séddoog sama jabar mais teg ci aussi li may may balaa moo jaar fenn su ma ñëwee daa toog ak sama jabar dinaa génn lu nekk sama poche ne ko lan nga bëgg mu ne ma lii laa bëgg ma di jox ko ne ko li ci des mu ne ma waaw mu ne ko calculeel ma ko nga xoolal ma ñaata la bu ko calculer ne ma lii la ma ne ko dencal ma ko bu subaa naa ko yóbbu banque dafay permettre moom aussi mu mën a xam ci jëkkëram li muy yëngatu li muy xëy ak li muy gontu te loolu permettre na ma loo xamante ne ni euh, sama xaalis damay xam fu muy dugg parce que sama jabar parfois daf may xelal dama bébé démb di indi nga fi euh, mille francs wala démb di indi nga fi deux mille dencal naa la ko fii mu ne waaw mu ne ma yow deux mille yii nii lan nga ci xalaat def bébé ma ne ko deux mille yi man de xalaat naa jël 2000 francs yi jënd ci ay dàll jaayaat ko mu ne ba ah waa loolu de idée la mais est-ce que boo dàll yooyu boo ci yokkoon yére yooyu loolu dina baax de wala 2000 yi nga jël nga jënd ci ay dàll jënd ay yére nga jox ma yére yi man ma jaayal la ko mais pour man loolu mooy complicité déjà man yàlla may na ma pour que mu uti ji xaalis mais peut-être yàlla moom may na ko xel mi nga xamante ne moom mu ngi am ay plan ak ay solution yoo xamante ne peut-être mën na ko yokk man ci sama liggéey lu may avancé la mu ne ko ah bébé li nga wax dëgg la parce que xaalis bi su ma ko naree yóbbu banque di ko fa denc rek mais li ma wax nii su ma ko jëlee ànd ceeg yow peut-être su ma jëndee ay affaire mën naa la ko jox yow sax nga jaayal ma ko peut-être xaalis bi jël di ko jox waa banque ñu ciy liggéey li mu wax ni solution la et ma essayé loolu ma jël sama xaalis jox ko mu dem jënd dàll wala mu dem jënd leneen moom ci côté am na ay xaritam ma commencé waaw commencé di jaay commencé def ay affaire mais 1000 francs boobu ma dencoon banque damay jékki-jékki sama jabar na ma bébé am na ku jënd ensemble bi ma jënd démb doon ko jaayaat kooku di tegal na ma 1000 francs ci sa mille francs boobu ma ne ko ah bon ne ma waaw ma ne ko gisal loolu rek léegi ma joxoon ko 1000 francs mu ñëw indil ma 2000 ma deux mille ak deux mille yooyu jox ko mu dem jëndi jaay ñëw indil ma trois mille léegi loolu su ma ko joxoon banque est-ce que banque dina ma jox trois mille francs est-ce complicité bi ma am ak sama jabar tey est-ce que am naa ko ak banque déedéet ndax yërmande gi sama jabar am ci man banque amu ko ci man bëgg avancement bi sama jabar am ci man banque amu ko ci man kon pour man dara gënul neex nga jël ki nga nekkal def ko sa outil de travail dara gënul neex nga jël ki nga xamante ne moom la la yàlla booleel def ko muy sa complice muy sa xarit ndaxte pour man jabar euh, soxna la ñuy wax sax neex na neexaay boo xamante ne tey atele bi ngay yor nga jël ay ouvrier ay emprunté nga teg leen fa di leen fay par weer ñu lay liggéeyal mais boo leen fayul weer benn weer boo leen ko fayul dootuñu la liggéeyal te pare nañ ci yow mais imaginel ñi may la soxna may may la wax maanaam comme ça emprunté yooyu ñu may la ci kenn koo xam ne yaa ko moom maanaam soxna yow ko góor ki dañ na ko may nga may la ko ci farata yàlla ak sënam Muhammad suñu borom accepté loolu donc soxna mu nekk benn œuvre œuvre boo xamante ne yaa ko moom yàgg naa ko wax quoi mooy comme téléphone bi nga téye koo xam ne téléphone bi yaa ko moom bu daanoo rek da ngay jàpp sa bopp ne wuy yaay yàlla sama téléphone bi toj na bu tojul bu xoosoo da ngay découragé ay yow téléphone bi xoosu na da lay metti téléphone bi bu ko dara dalul foofu fu yow fu ñu la fekk yaa ngi wuti ji protège yaa ngi wuti ji euh, casque yaa ngi koy nettoyer di bañ téléphone bi tâche di bañ mu tax te téléphone lu ñu réparé fi lu defar fii kese la ab œuvre la nii rek waaw léegi doomu aadama bi nga xamante ne nit njaay la ak ay noppam mën lépp suñu borom may la ko ci farata yàlla ak seen Muhammad koo ko raw téléphone xam nga téléphone du wax téléphone du jub du dox di la jàppale kii ñoo ñu may la ko comme ni ñu la mayee téléphone mais dee ko fomp di ko nettoyer foo gis lu rafet jëndal ko mu nekk sa complice nekk sa xarit nekk sa àndandoo looy def boole ko ci moom tamit lu muy def boole leen ci ndax woykat bi dafa ne benn moo mën ñaar ñaari loxo kese ñooy tàccu boo nekkee boroom kër sa biir kër nga jàpp ne yow kese mën ngaa tàccu yaa ngi nax sa bopp nga nekk boroom kër nga jiite kër gi nekk kilifa waaye taxul nga jël nga jël sa benn loxo bii rek ne da ngay tàccu de man instant bi sama loxo bi su ma ko tegul sama loxo bi doo dégg bruit wala su ma tegul ñaari loxo yi doo dégg bruit kon loxo bi il faut am fenn fu mu wéeru te fi mu wéeru nag kooku la la yàlla may ci farata yàlla ak sunna Muhammad kon kooku noonu boole ko sa bopp boo bëggee avancé man de sant naa yàlla depuis bi ma jëlee méthode boobu xam ne sama soxna mooy sama lépp mooy sama doole ndax benn loxo la beneen loxo bi su ma ko ci yokkee mooy sama doole lu may yenu te nu ma ko il faut moo woo ko mu ñëw jàppale ma ci lañ koy antan raison pour laquelle tey jii fi ma nekk nii su ma doon tuxu mais lu may jàpp moom laay woo bébé kay jàppale ma télé bi ñu teg ko fii bébé kay jàppale ma lal bi ñu teg ko fii bébé kay jàppale ma yére yi ñu teg ko fii mais bébé kay jàppale ma ñu liggéey ñu avancé tekkee ndoo avancé ndoo pourtant loolu tamit mën na nekk mais du pour benn œuvre boo xamante ne dafa war a toog ci biir kër gi donc ñu ñuy góor ñu ñoo war a dawal compréhension benn jour benn chinois dafa ma wax lu am solo am na ay temps avant que may euh, liggéey ci métier bi ma yor tey ji dama daan ànd ak sama jabar dama doon wër di jaay ay làmp ay làmp laa doon jaay ay làmp lu garaaw laa leen di wax nii su ma demee jënd ay làmp bu ma ñëwee damay ànd ak sama jabar sama jabar takk ay dàll ba dëgër ma takk samay dàll jël sama mbuus tee mu jël mbuusam tee ñu ànd di wër di jaay bu duggee ci benn magasin dama ko naan jiitul bu jiitoo dugg ci magasin bi mu proposé ñooñu ne ko bëgg nañ làmp yi mu woo ma ne ma bébé kaay monter leen moom mooy proposé mooy jaay mais man maa war a yéeg pour monter ma koy def di ko def di ko def ba taseeg ay chinois chinois yi commandé ay làmp biñ ko nee kan mooy monte nii mu ne leen sama jëkkër mooy monte chinois yi dañ mën a gis nga li ngay def nii ñun dey ñoo ngi doog gis Sénégal ba ñëwee ba léegi nit bu mel ni yow ndax ñun chinois yi ñun loolu lañu xam boo gisee suñu réew boo fa yeggee ñun suñuy magasin lu ñuy liggéey ñun ak suñu jabar ñooy ànd magasin yi suñu jabar yi ñoo fay nekk ñun ñooy uti ji bagage ñooy indi suñu jabar ñooy jaay bu ñu paree ñu teg suñu bénéfice séddoo mu ne waaye ñoom bu ñu ñëwee Sénégal Sénégal rek la ñuy gis ni ñoom ànd ak sa jabar di liggéey wala ànd ak sa jabar pour évoluer ñoom jàpp nañ ne loolu maanaam lu ñàkk faydaloo wala jàpp nañ ne day dindi seen kilifteef te pourtant loolu mooy euh, lu neex la daal. parce que man je me sentais trop à l'aise ànd ak sama jabar di liggéey mu nekk complicité bu garaw parfois day ñëw ne ma bébé am na benn client boo xamante ne nii daa bëgg ay làmp waaye ay affaire yi ñàkk fay la may wax ay dama laa nobak mu ne ko bébé xam nga la la ñun ñooy jaay gis nga bu ko sax wax na ko am naa jëkkër parce que boo ko nee am naa jëkkër sax ah dootul jëndati mu ne ma ah léegi da may jaay léegi daal kon da may jaay di ndax sa liggéey bi ma ne ko déedéet bébé affaire yi stratégie la yow xoola duggal nga jaay de toute façon xamal fi ngay yem ak moom bu la nee ay dangaa rafet ne ko merci bu commencé dugg ci ay affaire di joxe numéro yooyu jigéen nga xoolal ni ngay gérer rek mais yow nax ko ñu suñu victoire mooy dañ leen nax ba jël seen xaalis liggéeyal leen liggéey bu rafet mu ne ma ok mu ne ko boo duggee rek premièrement proposel nga jaay góor ñi moom euh, jigéen buy jaay ci lañ gën a mën a jënd ko góor moo tax sama jabar dafa naan jaayal ba ma kontaan boo duggee liñ koy njëkk def daraay ko eh booy yow rafet nga dee affaire yooyu mu ne merci merci balaa ñoo xam ne am na jëkkër récupéré na xaalis bi ba pare. ba woo mu ne ma bébé kaay monté ma monté moment boobu la ñuy doog a xam ne ndekete jëkkëram la àndal man ci bunt bi lay taxaw mais dañ doon liggéey xaalis bu bëri mais complicité boobu noonu tey kan nga ko mën a defal keneen ndaxte tey su ma génnoon di jaaye ji journée bi mën naa jaay vingt mille francs mais su ma àndee ak moom di jaaye ji journée bi mën naa am bénéfice deux cent mille chaque jour su ma demee man kese di jaay vingt mille francs laay gagné mais suma àndeek moom damay gagné deux cent mille francs la journée deux cent mille mais xalaat leen loolu ngeen xam ne kon am na yàlla lu mu def ci complicité diggante jëkkër ak jabar complicité bu garaaw li nga suñu jigéen ñi ñu jël leen bàyyi leen ci kër yi nii ñu toog nii li ñu mën a lijjantil ñun sax mënuñu ko kon nañuy jël suñu soxna yi def leen ñu suñu complice suñuy xarit parce que pour man loolu mooy meilleure solution meilleure sama mbokk jigéen yi yéen tamit ngeen fexe góorgóorlu bay naxtaan ak seen jëkkër yi pour gagner seen confiance jëkkër bul di xuloog moom lu bëri bul di tongoog moom lu bëri parce que loolu day tax dootu la wóolu te jëkkër bula la wóoluwul rek li ma la wax nii yëpp doo ko mën a dund ak moom parce que bu gisee ne li ngay coow ak moom dafa bëri doo am confiance sax pour wan la ndax am na xaalis wala amul xaalis parce que danaan kii su xamee ne ah, bu gisee xaalis bi ma yor daf may toroxal góor moo mel noonu moo tax dalay nëbb léppam yéen seen pouvoir ci góor mooy fexe di ko nax wàññi fiiraange bu metti bi man ne sama jabar ji parfois de jigéen sax daf may woo parfois dama koy def exprès démb moo ci mujj démb démb dama dem euh, non keroog bi muy def live bi fii barki démb la dama dem studio ñuy jëw ummi ba am benn femme bu ma ne yow sa jabar day soob rek fii jigéen ñëpp a fiir dafa gisagul rek ma ne ko man dey am na confiance ci moom confiance boo xamante ni noo ko bëgg a tester rek fii raa may naa la nga tester ko rek tombeek ummi wooma ne ma bébé yaa ngi ci liggéey bi ma ne ko waa maa ngi ci liggéey bi mu ne waa baax na kon boo paree rek ma ne ko ok dafa coupé rek femme bi ne ma jox ma sa téléphone ma woo ko ne ko nekkul ci liggéey bi mu ngi sama biir kër toog te femme bi moom secretaire la ci bureau bi ma doon tourné sama clip bi parce que moom ci la bokk mais pour preuve dafa jël téléphone bi mu woo ko ne ko ça va mu ne ko ça va mu ne ko Ron nekkul foofu de mu ngi sama kër toog nekkul fi ñuy tourné nekk te li ko Oumy war a tontu yëpp wax naa ko avant nee naa ko boo ko waxee xam nga lu mu lay wax toppatoo ko kon bu baax mais heure tëddam bu jotee rek na nga ko bàyyi mu ñëw tëdd te gis nga ndaw si bi ko ummi décroché loolu ko njëkk wax te ko ne ah ci yow la nekk mu ne ko waaw mu ne ko noonu loolu amul benn problème mu ne ko gérer ko rek gérer ko bu baax moom ndaw si dafa tiit sax parce que premièrement boo gisee li tax mu def loolu parce que xam na jëkkëram deuxièmement xam na góor te loolu am solo la xam sa jëkkër pare xam góor góor mooy yor lu dàq ci àdduna bi moo dem di wër ji lu gën a ñaaw parce que du doyal léegi boo bëggee may sa boppu jàmm yow ko jigéen gi premièrement da ngay xam sa jëkkër mooy xam heure de travail am heure wàccam ak ndax taxawaalukat la wala du taxawaalukat ma nga xam ne dafa am jikko boo xamante ne ci góor yëpp la nekk góor du doyal ñàkk a doylu boobu moo tax suñu borom ne leen may naa leen ngeen takk ba ñaar boo leen doylul ci benn mu xam ne ñaar yooyu sax dañ ci am problème mu yokkaatal ñu ne ñu waa léegi ñett xanaa xanaa ñett yi dina doy moom suñu borom mu dem ba xam ne ñett yi doyuñu bëgg doomu aadama bi mu bëgg doomu aadama mu ne waa léegi yokkal naa leen ba ñeent léegi nag ñeent nag moom ku mu doyul dootu la doy waaye suñu borom moom moo ñuy yokkal moom mi ñu moom te mënoon a taxaw benn mu ne ci benn bii ngeen di yem te ku ko dépassé di nga am problème ak man ndegam moom moo am problème mu réglé loolu ba yokkal ñu ba ñeent kon xam nga ne kon yéen jigéen ñi leen réglé loolu. léegi il nga xam ne loolu mënoo ko réglé ndegam suñu borom moo ko réglé ba yokkal ñu waxtuma la ak yéen kon loolu xam góor ci bokk mu muy jikkoy góor ñëpp nag. loolu boo ko xamee nga dugal ko sa biir bopp bi loolu dalay permettre fiiraange dañ sa bopp yenn affaire yi doo koy xalaat de vérifier sa téléphone jëkkër di topp ay paam di topp parce que loolu mën na indi ay détails yoo xamante ne mën na tas sa sëy moo tax c'est très important pour que fiiraange bi nga xamante ne ni moo leen di indil problème gis nga téléphone téléphone bi bu sone woon tey kenn ci yéen su ma woowoon mu nekk sama gel ñu woo ma zéro heure mu leer na na ummi leer ko ne heure bii nii du heure d'appel boo xamante ne nii euh, euh, nit ma war a woo ummi bu ko doon décroché xam nga ni muy def bu bu bu téléphone bi doon sone premièrement xelam benn xelam sax mayu ko pour ko mu décroche téléphone bi juróom-ñaari xelam mayu ko ko du ko def ba àdduna tukki di ko def loolu moom premier la loolu nañ ko éliminer deuxième bi mooy bu koy bu may jox téléphone bi xam nga na lay def daf ma koy joxee nii daf may jox téléphone pare gestu na le xam nga gestu bi pour la la pour bañ a xool numéro bi affiché wu fii ndax góor la wala jigéen la loolu tax muy gestu pour bu lay jox moom bu lay jox téléphone bi day day xool côté bële parce que buggul sax xam numéro bi woote góor la wala jigéen la parce que xam nga la may problème bi maa ngi gis nga ne elle t'a fait confiance dëgg la mais confiance bi mu ngi ci mais li ëpp solo xam nga lan la mooy bañ a sonal sa bopp Oumy day bañ a sonal boppam ndax bu sonalee boppam daf may sonal Oumy day bañ a dugal boppam day bañ a jël boppam dugal ko ci loo xamante ne ni mën na yàq sëyam ndax tey bu téléphone bi doon sonné mu xool ko ne ma waa lii de alimenté lañ ci tudd lañ ci bind alimatu moo lay woo dinaa jël téléphone bi dinaa wuyu su ma paree moom moo ngi toog di xaar ma expliqué ko alimatu boobu noonu lan moo tax mu may woo ak kan mooy alimatu léegi moom pour bañ loolu yépp sonal ko moom dafa may jox téléphone bi ba pare ges na le léegi loolu mooy premier bi deuxième bi xam nga mooy lan mooy su ma joxee téléphone bi ges ba pare des fois day jug di génn néeg bi man maa koy téye ne ko toogal parce que foofu déjà wan na ma ne ma am na ku lay woo premièrement deuxièmement bi moom bëggul dégg li may wax ak kooku ndax peut-être dégg-dégg bi sax mën na ko indil ñaaw njottu wala mu dégg ci lu mu ci warul dégg loolu sonal ko ci xelam ba tax na mu riposte daal sama kaw yooyu da koy éviter léegi après nag man ko góor ki man maa war a def geste maa war a def acte pour wan ko ne ko fii jàmm moo fi am maay téye ci loxo bi ne ko doo génn bébé toogal damay waxtaan léegi li may waxtaan da koy dégg ma waxtaan ak kooku ci jàmm même bu dee jigéen la waaw ça yaa ngi ci jàmm mu ne maa ngi ci jàmm Nero waaw maa la doon woon nangam nangam ah ok ah yaa ngi ci jàmm ça va bien waaw merci man de dama laa bëgg ah maa la raw gis nga de nangam nangam foofu tout court sama jabar xam ne kat kii fans la wala kii lii moo ko tax a jóg kii liggéey moo ko tax a jóg parce que tamit malgré que am na ci man confiance mais il faut man tamit ma def lii tax mu gën a am ci man confiance lu may premier. donc chaque jour couple confiance bi daf ci joué mais tamit il faut nit ki di bañ a sonal boppam di bañ a sonal boppam sonal boppam mooy di dugal sa bopp loo xamante ne mën na la sonal loolu am importance la parce que tey téléphone ummi mën na sone man ko góor gi ma commencé jël sama bopp bi du ci dugal ay affaire kan mooy woo ummi heure bi ah ummi xam naa day bàyyi ba ma dem muy waxtaan ak ay nit dèjà maa ngi dugal sama bopp bi loo xamante ni daf may sonal te loolu man dama ko war a xeex te loolu la ñëpp war a xeex éviter di dugal sa bopp bi loo xamante ne daf lay sonal. ki nga nekkal amal ci moom confiance wóolu ko del partage ak moom yow mi jigéen sa jëkkër bu nangul partage ak yow yow demal partage ak moom parce que confiance bi yow ku jigéen ki yaa koy njëkk indi même bu fekkee de dafa nekk góor boo xamante ne moom lenn rek la xam liggéeyuwaa ci ñëw toog xam nga yow lan nga war a def yow ku jigéen ki ñëwal di partage ak moom loolu day tax sa jëkkër ëllëg day am ci yow confiance. Nikita yow su ma la fekkee foofu du baax. yow ku jigéen ki lépp looy dugg ñëwal toog di ci waxtaan ak sa jëkkër bébé. suba dafa am lu ma war a def. ko hmm. bébé suba lan nga war a def. ko suba dama bëggoon a dem marché colobal foofu ay yére di ko jaayaat est-ce que loolu bëgg nga ma def ko mu ne la ah bébé ah bëgg naa de waaye tamit njaayam jigéen doy na waar de na ko waa ah, doy na waar kay moo tax ma lay laaj yow mi nga xamante ne yaay sama jëkkër peut-être yaa ma ëpp xel ci loolu jëkkër na ko mais est-ce que su ma la lii tanewul mais waxtaan boobu noonu bu fekkee ne amul seen diggante mais naka la kenn ku ci nekk di xamee lu mu bëgg yow ko góor ki bu fekkee ne da nga ñëw nga am loo bëgg ci sa jabar nga ne non da nga am problème wax ko parce que da nga rëy démb laa waxtaan ak benn copain copain bi daf ñoo invité man ak Oumy ñu toog di lekk mais dañuy lekk di lekk di lekk di lekk ba mu yàgg rek ma teg kuddu euh, bi quoi ma xool sama jabar mu xool ma boobu ñoo ñoo ngi lekk ah gars yi ñoo ngi lekk ñoo ngi concentré wu ci li ñuy lekk. moo xool sama jabar mu xool mu ne ko bébé waaw mu ne ko man dama laa nopp de mu ne ma man tamit dama laa nopp man tamit nopp naa la de rek copain bi ne ma waaye ba ci biir lekkante bi da ngeen nobante ma ne ko mais ci biir bi laay lekkee kudd ba mu yàgg ma sentir na damaa sama jabar ma te gudd bi wax ko ko parce que dama ko war a wax pourquoi léegi nobel bi man ma war koo denc sama biir xol bi dama koy wax parce que loolu da koy soulager copain bi ne ma am na ci couple yoo xamante am na ci jigéen ñoo xam ne pour ñu wax seen jëkkër dama laa bëgg rek soxoree nañ ko seen xool bi da ciy dagg ñëw si jëkkër ne ko papa I love you papa je t'aime papa damay toog di la xalaat papa dama dama mel ni ku dof ci yow ñoom am nañ problème mu wax loolu am na benn grand frère boo xamante ne nii dama ko fekkoon ndeysaan mu toog ma ne ko yow sa jabar ji da ko wax dama laa bëgg mu ne ma yëfu dof yooyu lu ma fi nekkee di wax ay kii dama laa bëgg ma ne ko te pourtant bëgg ngoo ko moom rek nga bëgg parce que boo la xoolee da ngay am problème mais iñaane nga ko wax na ko je t'aime pour quoi loolu quoi pourquoi pourquoi mënu leen génne li nekk ci seen xol yi pourquoi mënu leen mënu leen euh, mënu leen mënu leen naturel te bañ biis diis xool maak ummi bébé naam je sa lex neex hmm, dafa nooy sa bakkan su ma koy bés nii su ma koy daal nii damay am envie di ko fóon koy naan nii pourtant c'est très facile wàññiwu ma dara man li ma ko wax nii wàññiwu ma dara daf maa yokk rek waaw moom tamit mu gën a kontaan ci man parce que li ma ko wax noonu dundal na ko ko am na fu mu ko yóbbu di gën a kontaan loolu day dàq seytaane xam nga man iblis bëri na doole trop mais li muy bëri doole yëpp sama buntu kër lay yam ñi mawul dugg sama biir néeg <laughs> te pourtant fii ñëpp ragal iblis bañ nañ ko ba lu ñuy wax dañ naan onge billahi mina seytaane rajim <laughs> mais man la moo tax iblis man ñemewul man dugg sama biir nekk. yàlla seytaane sama parce que mayuma ko ko iblis bëri na doole trop mais doomu aadamaa ko ëpp doole. iblis mayuma ko lu mu dugg fii parce que tànk maa ngi raay kii di ko fóon di ko wax wax ju neex. Iblis du dugg mukk xalaatu ko sax parce que moom loolu arrangé wu ko kon temps bi ngeen di jël naan seytaane dafa bëri doole seytaane dafa bëri doole yéen a ëpp seytaane doole téeméeri junni yoon da ngeen ko nanguwul utilise seytaane di leen manipuler man gëmuma ni seytaane dafa ma ëpp doole des bu mer ñëwee sax ba nara a si sax damay xalaat seytaane ni jóge na ci buntu kër gi de mu ngi yegg escalier waaye du yegg de sama jabar tamit mel ni man du nangu seytaane ñëw parfois dañuy waxtaan ba kolo commencé réeroo maanaam réero bi buy ñëw xam nga naka koy xamee voix yi day élevé maanaam baat yi ngay gis ko góor ki di commencé wax bu baax waaw yow après rek boo wàcce waatee sa baat rek ba tolloog sa jabar rek xamal ne seytaane ngi mer parce que seytaane moom fi muy mën a dugg mooy baat yi ba demee ba sës après foofu day ñëw donc ngeen wàcce seen baat yi ak seen jabar yi yéen jigéen ñi ngeen éviter di wax ak seen jëkkër yi di leen yuuxu parce que góor bëggul loolu yuuxu sa jëkkër wax ko loo ko warul wax déranger loolu baaxul. nañ loolu laa amoon tey lu may partager ak yéen. su ma sañoon chaque jour ma def live di partage ak yéen li nga xamante ne ni noonu lay dund ak sama soxna bi ñi nga xamante ne ni dañu naan xale la sëyum xale. yaay ja moo tee ci mbagg yi vrai la olof la waaye tamit sëyub xale bu téyal boppam mbagg yi yaay ji dina kontaan de bu téyal boppam mbaggam kooku fierté yaayam la koy jox bu kenn jàpp ne xale nga ba chaque jour dañ la war di yedd bu kenn jàpp ne xale nga ba chaque jours danga war di am problème man de kii bi ma ko takkee ba léegi mësuma woo benn parent amul du mag du rakk du yaay du kenn ku mës koo xamante ne mës nañ ko woo téléphone di ko wax naankaan dañoo am problème arrangé ñu du sama côté du côtéem du dëkkandoo du kenn mais léegi imagine waa xanaa kon ñun ay paa lañ moom meer la mais ñun ñun ay xale yu ndaw lañ comme yéen la moo tax ñun xale yu ndaw yi ñun ñu mën loolu nga gis ñoo xamante ne ay magum jëmm lañ ñuy toog di di di régler seeni problème ñoom ay mag di ñëw di régle seeni problème ay parents yi di jaabante guddeeg bëccëg di wax bay maar mais rus leen yooyu moytu leen yooyu dàq leen seytaane seen kër yi lii rek lañ fi ama ah. suñu boroom nee na sama alal maa ko moom sama wërsëg maa ko moom kër gu ma boole ñaari nit pour que ñuy sëy kër googu noonu bari coow bari xuloo sama malaakal yërmande duma ko yónni ci kër googu man day sax suba teel fajar six heures du matin yeewu ubbi sama fenêtre di xaar malaakal yërmande bi ñëw buy ñëw nag féex bu neex lay indaale parce que man xam naa ne chaque jour day ñëw ndaxte yàlla lim ñu sant ñun ñoo ngi koy jaamu bu baax ci suñu sëy moo tax amul jour bu mu dul ñëw fenêtre bi moom six heures buy jot ma koy ubbi na koo sëñ bi yeggsil ak jaam <laughs> te day yeggsi non vraiment sëy bu neex dafa neex ko parce que dara dàqul ngay sëy ci lu ñëpp d'accord suñu boroom toog ci kaw di la tàccu di kontaan di yónni malaaka malaaka bi mu gën a bëgg ne ko demal nga waxal ma ummi énéro neen leen kontaan naa ci ñoom waaye <laughs> mu ne malaaka bi waxal ma Néro ne ko tey journée bi fu mu génn dama koy jox xaalis ba mu kontaan lu mu yóotu da ciy jot ndax man maa kontaan ci ni mu téye soxnaam te ah, maa kontaan ci ni ko ummi téye mais ñu ah, moytu couple yi nga xamante ne mm. couple yi nga xamante ne suñu borom da di moolu nan couple yi jéppi naa leen waay mais ñii nii rek lañ fi bëgg a nekkee kon il faut que ñun ay doomu aadama lañ chaque jour li may tàmm di wax mooy sama dernière sama last moom mooy nit mooy yar boppam nit dafa am ñetti étape ñetti étape yoo xamante ne doomu aadama daf ko war a yaru dafa cee war a yar boppam xam nga ñetti étape yooyu mooy leen mm. bi nga juddoo nekk xale bu ndaw dañ lay xamal loolu mooy première étape bi foofu duñ lay yar dañ lay xamal loolu laal ñu ne la lii bàyyil lii nii la tudd bu ko laal bàyyil téléphone bi danga koy yàq foofu dañ lay xamal xamal na la lii waroo ko laal lii day yàq lii nàngam nga toll ci état bu xàmmee foofu dañ lay yar waroo def lii lii baaxul bul defati lii boo génnantee ci mbedd mi bul yegg fële bul dem fii foofu dañ lay yar nga dem ba màgg xàmmee xam foofu yaay yar sa bopp maanaam am na ci loo xam ne parents yi mënuñu koo def ci yow foofu ndax kilifa nga mag nga dox nga xam nga xàmmee nga xam nga li nekk ci mbedd mi foofu yow yaay yar sa bopp ndax fi ngay teg sa tànk yi bu dee ko góor ki nga gel bi nga doxaan fi nga ko war a yóbbu la nga ko war a def ci sa bopp bi la nekk nekkul sa bopp yaay nekkul sa bopp pap kon yow yaay toog ba mu neex la nga ne lii may def nii est-ce que baax na noo bu ma ko def yow ko jigéen ki moment bi nga demee ba nekk mag yor sa téléphone xam fi nga war a dugg ak fi nga war a génn yow la sa copain di woo ne la bébé fekk ma fii xam nga li nga fa war a def nga toog yeddaat sa bopp boobu sax sa yaay yëgul ne sa far woo la sa papa yëgul sa papa yëgul ne safar woona la léegi kan moo ko yëg. kenn kon foofu yow yaa yar sa bopp. Hmm. est-ce que su ma demee lii duma fu fekk mais man li may def baaxul te ma toog rek kon léegi yarin boobu noonu loolu mooy dernière étape bu doomu aadama kon même bi ci biir sëy bi boo toogee di sëy yaay toog ngay yar sa bopp man sama jabar ji baax na trop de mais mën naa ne lu bari man maa ko yokk def ci moom ndaxte gis nga bu ñëwoon di sëy ak man ma am benn melokaan bu ma mel ak moom di xuloog moom di tongook moom li ma war ci moom defuma ko dina dem ba li ngay santiir boobaa ci yeneen jigéen ñi di ko sentir ci moom ndax boobaa xolam dina dem ba dina toll foo xamante ni danaan kii du góor bu baax kon defante ak man rek lay def moo tax jigéen am na ci point bu muy toll boo xamante ni yow ko góor ki yaa koy defar defar parce que ki nga xamante ne sa jabar la boo ko defarul amul keneen koy defar boo ko defaree ba mu man ni mu war a mel nag sa fierté la kon nañ defaruwaat te suñu bopp te suñu sëy te suñu rakk yi jigéen yi téye suñu gel yi téye suñu yaay yi te avancé jëm fi kanam tey loolu la amoon lu mu leen di bàyyil fii mu nekkoon euh, waxtaanu Oumy et Nero samedi bi wéttal leen waaw donc euh, Oumy amoo ay paroles yoo war a jox gars yi man pare na wax naa lépp waaw yokkal leen ci tuuti rek bébé mm-hmm. wax nga lépp mu nekk nii moom loo leen ci jafaram ah, wax waxal waaye mooy ko nëb naa la rek laay wax man yow yow nii la def ni nii la def ñu yóbbu ko télé mu dem ba TFM ñu ne ko looy wax yow sa dernier mot mu ne nob sama jëkkër nob <laughs> mooy yoon bi <laughs> waaye sama gars yi bég naa ci yéen kontaan naa ci yéen. Mm. donc euh, ñi nga xamante ne jotuma lire seen i message maa ngi. jégalu Nikita <laughs> euh, Nikita tey dama tey taluma ruube. tey dama nekkoon ci waxtaan bi. xam nga rek dama gëjoon a def live. tey mënu woon ruube quoi sinon namu naa la waxtaan ak gaay yi waaw fan yi moom il faut ma commencé waat di def live waxtaan ak gaay yi bu baax a baax a baax a baax. waaw parce que euh, il faut yenn yi aussi ñu koy partager ak nit ñi. Diouf ñu ngi oh, ak nit ñi parce que parfois damay gis ay commentaires gars yi di wax naan waaw yéen euh, seen live seen vie bi ngeen di jël di ko di di ko dugal ci TikTok bi waaw mais man man dama fier ci loolu quoi parce que je vois que. yàlla da may na ma loo xamante ne peut-être am na ñoo xamante ne mayu leen ko man je dis que dama war a partager man li nga xamante ne am naa ko pour ñi nga xamante ne nii diis nañ pour def loolu seen biir néegu sëy mm-hmm. ñi nga xamante ne nii peut-être mën bëgg nañ ko def mais mënuñu ko def mm-hmm. ñu xool yoon bi ñu koy defee parce que tey dëkk bi toll na foo xamante ne tey lu bon li moo ëpp doole lu baax li soo xëyee nga déglu rajo première rajo bi ngay njëkk a dégg Sénégal ñëpp xam nañ ko tës tës mosoo faa mosoo déglu tës nga dégg fa solution wu sëy ñuy sëy nekk ci seen jàmm déedéet émission yi ngay dégg yëpp émission wu tolof tolof la ci biir néegu sëy émission yooyu tax na ba tey célibataire yi nanguwu ñoo sëy jigéen ñi nanguwu ñoo am jëkkër parce que ragal nañ góor ñi nanguwu ñoo takk jabar parce ragal nañ parce que li ñuy dégg ci rajo yi moo kawe diw soo soode ne kii kii def na ni jëkkër ji ba mu ko takkee xuloo xeex lañ fi nekkee woon loolu rek ngay dégg mais léegi ana ñi nga xamante ni ñoom ñu ngi sëy sëy bu rafet sëy bi yàlla suñu borom bëgg ñooñu de pourtant ñoo ngi toog mais dañoo làqatu nanguwuñu ko wane léegi cas yu bëri yi nga xamante ne nii ñoom ñooy indi problème yi yooyu rek ngay dégg ci télé yi ak rajo yi mm-hmm. tax na kenn nangootul sëy man man dama war a bokk ci kaaw exemplaire yi nga xamante ne day day day tax gars yi ñi mee dem sëyi ji mhm. day tax célibataire yi ñi may dem takk ji jabar day tax jigéen ñi nga xamante ne nangu ñëw sëy bëgg am envie sëy pour def comme ummi lu muy def kon man dama war a bokk ci ñi nga xamante ne ni dañuy joxe exemple gars yi di gis suñu vidéo di am envie ji sëy mhm. parce que tey ñi dàq communiquer tey ñi dàq communiqué tey ci Sénégal gi li ñuy communiqué yépp ay ñaawteef kese la yéen ñi may déglu gisuleen kenn ku communiqué muy journaliste muy télévision bu communiqué ci sëy bu rafet communication yi ngeen di dégg yépp sëy bu tas la dóor na ko saaga na ko yóbbu na ko police journaliste yi bu ñuy bind loolu la bind def ko en grande tête tey agression ku góor ki moo rey ko jigéen ki dañ doon sëy yóbbu nañ ko police tas loolu ngay dégg jigéen bu woote waaw sama jëkkër dafa may toroxal dafa may dóor gu ba bëccëg dafa may def lii dafa may def lele donc ban émission moo am ci télévision boo xamante ne moo ngi wane sëy yu rafet yi sëy yi nga xamante ne moom la suñu borom bëgg sëy yu jaamu yàlla ma bii la mais kon ñoo ngi ci monde boo xamante ne bu ñu xeexul dëgg lu baax lépp la ñàkk ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo ngi dund ci lu neex ñun ñoo ngi dund ci lu baax ñun ñoo war a xeex lu bon li parce que lu bon li ëpp na ci média yi de mais ñun Oumy Aidara de suñu fight mooy yu bon yi ñuy waxal marié yi sëy yi sëy yi ñuy yaakaar ne baaxul am na sëy yi baax ba léegi te képp koo xamante ne bëgg nga sëy peut-être boo jaaree ci tànk yi dinga nga sëy te di nga am tiyaaba mm-hmm. boo dee di nga dem aljana mm-hmm. loolu moo nekk sama dernier mot sama gars yi maa ngi leen di nuyu leen wax euh, fan yi wax ñoo xamante ne waaw ñi may wax sama jëkkër sori ñooñ tooñ naa leen sànq bon di leen wax rek choix boo xamante ne ñoom ñoo ko def metti na mais mm-hmm. on n'y il faut tamit jëkkër moom bu ñu xësee ba ne ci farata yàlla ak sunna Muhammad lépp lu mu la wax loolu nga war a def déggal ko après topp ci ay ndigalam toog mm. xaar ba keroog muy ñëw rek que seen choix la aussi kenn mënu ci dara waaw donc loolu laa am jeex na. léegi yow amal loo leen may. loolu rek leen may bébé nag yow naa caaga nag bébé <laughs> yow li ma la fóon dafa bëri ay eh, sama gaay xam naa ne guddi na tontu leen man dem leen ba guddi bilaay ñoo la raw ah ma def ma nekk ni moom aw daal lu wax Nero wax na lépp Nero wax na lépp nu mu leen ko waxee daal wax dëgg fa da leen koy defee noonu rek sëy moom jaamu yàlla kese la hmm. waaw te boo yaakaar naa ne loo jaamu ci yàlla di ko gis ala kulli aale dañu faral di naan jigéen buy sëy di am si biir néegu sëyam hmm, kooku bés bu amee doom ay doomam duñu tumaranke ñu mos a nekk ci ay tolof tolof <coughs> jàpp ni nag loo mënta muñ ci seen néegu sëy ak looleen leen ci jaamu rekk bu leen ko mos a xeet am na ñu fi nekk di naan sëy neexul dafa metti àdduna fi gisuma fi lu fi neex nelaw ci boppam sax neex na mais gisuma lu gën a métti nelaw parce que da ngay nelaw du bërëngu fu nekk du tourner di gauche à droite kon nelaw fu mu méttee kon yaakaar naa ne sëy noonu la mel muñ jaamu ci yàlla def ci loo xamante ne yàlla moom la bëgg te moom la santaane. man de wax dëgg fa yàlla man de li may conseil samay moroomu jigéen li ma leen di ñaax tamit nañu gën a góorgóorlu muñ te téye seen jëkkër te xam ne jëkkër sàng la. waaw man de sama bos bii de man sant naa ko gërëm naa ko parce que mosul toog fenn te waxul lu baax ci man amaana parfois day wax sa ba man mii damay tiit kon man moom awma fayam lu dul di koy sant rek di koy gërëm suturaa ma nangul na ma teg na ma fi ma war a teg bëggul ma ñee sama benn moroomu jigéen lépp lu ma bëgg suba ngoon mu ngi ciy daw kon man damaa jàpp ne Nero awma fayam yàlla kese moo am fayam moo tax sama sëy ji lépp lu ma siy def lu ndaw dama koy gën a multiplier parce que de sama yaay de benn baat rekk la ma faral di wax na nga gën a góorgóorlu waxuma góorgóorlu de mais na nga gën a góorgóorlu saa yu may wax moom téléphone loolu kese la may ñax na nga gën a góorgóorlu te man duma mës a décevoir sama yaay ci benn côté comme dafa sey ba sama papa gërëm ko woon ko ginnaaw man mi umi tamit maa ngi ñaan yàlla seel sama jëmm ji bu mu gërëm ma te ñaanuma yàlla mu dem bàyyi ma fi wala man ma dem bàyyi ko fi maa ngi ñaan yàlla bés bu ñuy dem maa ngi ñaan yàlla man ak moom ñu ànd demandoor mooy li may ñaan te maa ngi ñaan yàlla yan na ko yàlla def sëy nag nañu sëy nañu sëy te muñ roy ci suñu yaay yi parce que dama jàpp ni exemple bu ndaw laay joxe supposons que ne sa yaay mu ngi si néegu sëy mu ngi sëy yow xale bu jigéen bi nga ne danga sëy mënoo supporter problème yi ngay am ak sa jëkkër nga fase ko léegi yow fase nga ko nga ñëw fekk ak sa yaay ak sa papa ñu am problème sa yaay toog na du muñ mais pourquoi pas comme suñu yaay ñu ngi sëy du muñ pourquoi pas ñun mënuñu def comme suñu yaay yi pourquoi pas ñu mënuñu toog muñ comme suñu yaay nañu muñ sëy dafa neex xam nga lu tax ma ni dafa neex imagine toi boo nekk ak sa jëkkër yéen ñaan ngeen am compréhension bi ngeen di dawal seen biir néegu sëy gisuma lu ko gën ne xoolal ma nekk Nero suba teel parfois di yeewu ni suba teel bu yeewoon nii xam nga la laay njëkk xool ci taabal bi. ndax bàyyil na ma foofu dara après daf may saboote yow ni nga bëggee dërëm may xaxataay di may ree balaa muy jóg balaa muy dem ma daw fekk ko si bunt bi song ko bisu ko fon ko xam nga mu ne ma waaw kay chaque jour moom lii rek mooy mujjee ma ree ma xam ne moom tam la fekk may def loolu maa ngi gis ci kanamam fierté mbégte ak kontaante day dem liggéey fii laay toog 30 minutes du so du génn kër gi sax ma koy envoyé ay message ay bébé déjà ti yaa ngi commencé di may manqué affaire yi mënuma yow ni nga deeyee mais loolu yépp ci sëy la bokk jonge mokk sa pooj xam nga di def di def loo xamante ne sa jëkkër moom la soxla surtout ça parce que bari na fi ay jigéen yoo xamante ne ñu ngi seen néegu sëy de mais lu leen yàqal seen sëy xam nga lan la dëgër bopp dëgër bopp bi mooy lan mooy war a génn tey sa borom kër ne la bul dem nga ne damay dem bul dem nga ne damay dem mais ku la ilif ku la takk ci farata sunna Muhammad ne la toogal pourquoi pas mënoo toog est-ce que xam nga lu tax mu lay naan bul dem xamoo ko kon nañu toog man mii da umi di daw ma fenn daw ma dikku sama jëkkër bu ma nee demal dinaa dem su ma nee toogal tamit dinaa toog waaw man moom ci bannee xam rek laay dox chaque jour ci waawam ak ci deetam mosuma tere ba ma dem mosul am te mosuma ko tàggu fenn tamit ba mun ne ma bul dem mosul am chaque jour fu ma ko mënta tàggu rek daf may naan demal awma xarit awma àndandoor sama jëkkër moom laa def sama xarit moom laa def sama àndandoor moom laa def sama lépp man moom dañu doon toog ay jamono may naan yow moom est-ce am nga xarit ma ne ko man awma xarit de yow rek de nga ma xarit maa ngi nii mooy sama lépp à sama famille man sama jëkkër sama jëkkër mooy sama complice waaw man daal li ma leen di gën a ñaaxaat daal mooy toog leen ngeen ngeen sëy jàppale seen jëkkër yi waaw loolu daal mooy li ma leen mënoon wax ci neraw lu mu jóge wax sànq vraiment kontaan naa trop si yéen ñi ngeen xamante ne jël ngeen seen temps toog fi di ñuy déglu mënoon naa leen ñàkk naka la sax ñu koy waxee mënoon naa leen naka <laughs> waxatil <laughs> rek. comme que yow moom say olof loola neex ñu koy wax. acca. waxatil naa ne xaaral ma noppi kon sama gars yi maa ngi leen di naan bonne nuit. vraiment kontaan naa si yéen et bu leen fàttee tamit. abonné sur suñu page YouTube suñu page bi dañu am doole quoi te yéen rek ci mën a jàpp xam nga ngeen dugg lien bi boo duggee suñu compte suñu compte kii bi TikTok bi boo leen duggee ci kii bi di ngeen ko gis. donc boo leen bësee lien bi rek dina leen yóbbu ci YouTube bi ngeen abonné wu foofu euh, pour Oumy et Néro bi gën a am doole ñu dàq seytaane xeex seytaane seytaane mun ñu sori ah yéen ma gën a naw ko euh, copain am na ko bëgg a dugg nii bon euh, oh, jàll na sinon ñu jël ko daf ko yéex waaw di leen bëggee ah di leen bëggee yéen ñëpp donc di leen wax tamit di leen wax na leen bon jël hmm. ko yëpp bon Mamadou bàyyi ñu jël la parce que naroon nañ tàggatoo il ñu jël Mamadou waa Nikita waa Nikita kelli bi bientôt ça va Mamadou ça va waaw kooku fay la fay fay biram penda waagaan fay fay yow de yaa jabar yéen a waagaan dugu dugu waagaan waaw bon yow daal yaag yaag sama jabar ji yéen a ko sant sama sama sama jamaa noir bi sama doom sama doom bàyyi la quoi moom la de sa doomu bàyyi la gis nga de bu ma taalam pour loola waaw taal ko non gars yi dañ la war a gis ah bon loolu duñu boole Nikita Nikita loolu duñu boole bu loo xam naa ko taal quoi clip bi nu mu tudd clip bi dina ñëw dinañ lay indil tur bi dégg waxal gars yi ñu dem abonné ji ci page youtube bi ah waaw youtube boo leen duggee youtube ngeen def ummi et nero waaw donc boo leen defee ummi rek wala ngeen def neroo rek moom dina leen ko yeggaleel waa youtube dinañ ci yeggale waaw ngeen abonné foofu waaw parce que vidéo yaa ngi ñëw ah waaw yaa ngi ñëw ay nañ gën a dugal ay vidéo pour nañ ci yéen nañ gën a dugal ay vidéo oh, kontaan nañ ci yéen loolu abonné suñu page YouTube bi ngeen may ñu foofu doole comme boobu ba léegi ñoo ngi toog di séddoog yéen euh, suñu xalaat donc nañ leen bàyyi ngeen dem tëdd nelaw et euh, ñun tamit xam nga parce que des na tey Oumy ba léegi kiyagul sama yaram bi sama voilà kabutal naka mu na ngeen def ay yàlla mi sàkk ba jàmm la ay naka mu kuula waaw yow dawoo ko de yow dawoo lamp bi de bi naka bagage yi waaw Baye noo xale waxtaan bi waaw maa ngi euh, rek ñoo ngi kóol am jàmm baax a baax amikali bu baax ma woyal la way de ah umu endero waaw mais yow noo wax nga gisee suñu waxtaanu tey bi ah. waa la naaf yo. a mexeme naaf yo. na jam. a ñaaja mexeme rek kenn wax mexeme yow degoo séeréer de. am ndik rek amoo séeréer. xa mosu yee. a mosu xe. am mosu. acakeke acake. dara. nii kay dégguñu dara. salaamaaleykum déggu leen ko man kay dégguma dara man kay kumbi de toog fi di gën a ñuul moo dama gën laa dégg séeréer. xam na la salu séeréer. waaw loolu moom ga la Cheikh Tidiane jarwaatu Mansour Mansour Mansour Touré Mansour Mansour lakkale Kapay naka mu waaw Kapay tey noo gisee waxtaan bi laa wax ah waxtaan bi xam Nero yow koo doon dama bëgg may du madame quoi mënoon yi dem Dann Odin. لما خم waa Nero. Nero waaw. waxtaan bi. waxtaan waxtaan bi ke comme que déglu woo ko moom ko mu ne dinañ ci mën a sori parce que affaire sëy la jigéen couple yeeg yooyu noonu gars problème yi am ci couple yi. waaw aca non même bu dul marié couple yeeg couple mënti doon. ummi sama turandoo sa turandoo yëpp comme yow comme yow sa couple sa couple sa lan moo ci naqari. na ko ma macha allah yàlla yàlla a baax man ak lan moo la ci neex kon. li ci neex. man paaw paaw laay dóor paaw paaw. waaw. waaw léegi loolu léegi nag li la neex nag ngay def comme ñun lu ñuy def ñun li ñuy neex moom la ñuy séddoo gaay gaay di ci mën a jàng léegi yow wax ñu yow sa jabar li lay defal yow li lay neex yow ah, nga séddoo kook ñun tamit jàngat ci non sama jabar moom li may defal li may gën neex moom bëri na quoi mun ma mun maa jàpp lépp mun maa wax lépp mais vraiment moom xam naa ne moom jigéen bu baax la jigéen ko pour man waaw ba pare mën naa waaw parce que ñun ñun góor yi jigéen ñi ñu moom moom comme comme comme dama jël dama jël exemple comme sama soxna. waaw ñoom bala bala ñoo lekk dañuy bëgg sa yow nga lekk ba suur nga ñu. voilà. loolu moom am na moom. waaw man dañ lay defaral nga lekk ba suur ba pare. da nga gis ñuy def effort yoo xamante ni si ma leer li baax rek ko ba baax baax la quoi. dañ lay toppatoo loolu am yaa ma gën a xam yu bëree bëri daal mooy loolu daal loo comprendre mais ay jàmbaar lañu. waaw loolu moom baax a baax a baax nga leen di jàppale. non copain jàmbaar la. di leen gën a di leen gën a di leen gën a. déglu ma man deux galons la mais la bëgg a may dama la bëgg a may wuju yow wuju laa la bëgg a may yow. man ragaluma loolu man. pare nga. pare hmm? naa du tey. bu ma lay may tukulóor laa lay may tukulóor xam nga séeréer moom boo ko may rangalu ma loos ay kal la sëy bi day gën a neex rek parce que sama yaay tukulóor la ah kon dinaa la may yow moom xam naa yow moom mën nga sa boor quoi naan fi vidéo lu bëree bëri ma loolu nice très bien damay seetaan vidéo lu mais amul benn complexe ba pare en même temps ñu toppatoo jëkkëram baax a baax a baax ah ah, ah. parce que ñoom loolu lañ ama waaw loolu lañ am quoi ñoom ñoom vraiment ba ngay jàmbaar lañ quoi mais wuyu ma copain. ah ah. waaw kii bi ba moom kay moom kay moom muy def sax yi muy def sax genn wàll gépp wane wu ma ko sax. non man xam naa loolu kii li def lépp c'est naturel barki yàlla. waaye li def moom genn wàll gi wane wu ko sax. waaw poussé pour def vidéo rek pour wan ko nit ñi loo ko def vidéo oui carrément loolu am na de man man damay xool ci man ci loo loo dundul mënoo ko def vidéo nit ki li ngay bii rek li nga mën a def say vidéo di publier mais li nga xam ne yow bu fekkee nga am complexe ak sa jabar mënoo mënoo bëgg a def vidéo bëgg koo def bëgg bëgg kii bëgg a vidéo bu waa vidéo bi di rafet du leer waaw mënul nekk ah, wallaay wax nga dëgg wax nga dëgg de waaw mu ñëw naturellement nga mën a def vidéo bi naturellement mu mën a neex voilà yow comprendre nga. parce que yow da nga nekk quoi xam nga bu baax. waaw ah, man nag maa ngi maa a encouragé ba yàlla leen suñu borom bay njaboot yu barke. ci cat parce que bëñ ak làmmiñ amin allah des fois faaw ñu xaw a kii quoi mais yow amin dara baax dégg nga waaw dinaa <laughs> <laughs> kontaan na ci yow. amul amul lu dul kàddu quoi la bàyyi. bala ngaa def tàggoo. jeex na tàkk loolu rek am solo de. léegi dañ ci lool. waaw tere boo koy defee waay ngeen gën ana mo waaye wuy ma nekkuma abonné ci moom sànq envoyé naa ko message di ko wax. waaw dinaa la ko abonné abonné naa. abonné naa abonné naa dugal nga xool waaw abonné naa ci yow dugal dugal nga xool abonné nañ. eh sama gaay mi woy bi laay xaar ay waay xam ngi man kam na séeréer est-ce que waa gaa ma kim séeréer sax. sama bi dinañ leen ko génne incha allah. waaw sama gars yi ñoo ngi leen di man tàggu naa leen dégg ngeen sama bëri ngeen sama bëri nu mu xonke copain ah copain affaire bi man pour man da ngaa copain sax abonné nañ abonné nañ ci yow mi de jegim dabit nun to ni nun tiitaro ta donc euh, donc leen di wax euh, ba suba mun naa am dimanche bi nii suba ñu teelal a commencé def live bi. imbee di jam <laughs> parce que bi gars yi dañoo war a liggéey ah. dëggal kii nee kii kii nee na mbaldoo yow ñun mbaldoo wuñu fii de mbaldoo jotagul mbaldoo des na ngay mbaldoo fii. ewa groupe lee bëgg a ama noonu. jigéen bi noonu wax dëgg fa yàlla kontaan naam toog nun trop. billaay xeeñ sa buta bu toog noone nekk fu uma xam kontaan te kontaanaama kontaane billaay xam kontaan waa kon su ko defee <laughs> ñu def noonu ba suba incha allah kontaan naa bu baax tooma yi tooma yi kontaan naa bu baax a baax a baax ami kon xam naa ba suba comme xam naa ba suba insha allahu rabbi ay dangaa nëb sama jëkkër waa loolu kii la kaala bu subaa ñu waxtaan si ma coquette Nikita chérie à demain insha allah bonne nuit bonne nuit bisous bisous les gars ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao bonne nuit bonne nuit mes amours bonne nuit wax nga bonne nuit Bye bye.